ñu def ko ak xol bu sedd guyi mu rëy itam ci ñun lool ndax yow soo wootewul sax ku ci nekk ci ñun dafa war a teew ci sa wet boo fett su woon rek te ñu nekk fa àddina jeexe bu toqee suñu nopp rekk ñu war ñëw daw sukk ci sa kanam ndax xam nañ ne am nga maqaama am nga martaba am nga ñaan bu nangu pour que boo ñu ñaanalee suñu boroom mu yërëm lu te mu jéggal C'est avec ainsi donc un plaisir incommensurable que je comparais devant vous, auguste assemblée de l'islam au Sénégal et dans le monde. C'est avec bonheur que je comparais devant vous, grande famille que nous avons en partage, cette famille qui est sous la coupe, le commandement, la direction, l'administration de celui-là qui pour nous est la somme de toutes les excellences, qui transcende et l'histoire. C'est dans qui n'a pas fait la... Et tout exécador, il a très que le blanc ne vaut pas plus que le noir et que noir ne valait pas plus que le blanc. que le plus estimable d'entre nous est celui qui le craindrait le plus. Voilà qui nous a permis de fréquenter l'école française sans être français. Sans jamais nous départir de notre négritude, mais sans avoir à le crier partout où nous serons. Nous voilà qui avons appris la culture de la France, mais en étant hermétiques par rapport au nôtre, parce que le français n'en a vécu. Voilà celui-là qui n'a été reconnu dans ses mérites qu'après moult tests, moult souffrances, qui revient glorieux au, au, au point de faire en sorte que les Français tortionnaires reconnaissent en lui un érudit, un homme respecté par son peuple, un homme qui ne fait de tort à personne, un homme à qui, disent-ils, chacun d'entre eux devrait pouvoir ressembler. Mais nous, le Koyal mu bokk ci ñun jóge ci ñun ci lu ñu ma xam waaye jàpp naa ni fu mu jóge sore na waaye yàlla moo ñu ko may ñun ñu am mbégtewu am Xaadimu soon mu jóge ci ñun loolu lañu ñu war a mën a xam ndax xamuñu fan la jóge ndax il a tous les attributs Cheikh mun Bamba a tous les attributs qu'aucun d'entre nous n'a mais nous ne l'avons pas perdu nous avons juste essayé de le voir mais nous continuons de vivre exaltés de par l'héritage qu'il a laissé à ses petits-enfants. C'est cher Modou, vous êtes un heureux récipiendaire de ce legs de Cheikh, de Cheikh Al-Khadim. Vous n'avez de complexe vis-à-vis de personne. Vous avez su dire et vous savez dire et vous le faites toujours ce qui est la vérité, car cela seul importe. Vous n'êtes un laudateur de personne, ni vous, ni personne dans votre entourage. Vous nourrissez le respect pour tout le monde. Vous n'écrasez personne pour vous élever. Vous avez pour nous beaucoup de condescendance. Vous avez pour nous beaucoup de respect. Vous avez pour nous beaucoup d'amour et beaucoup d'amitié. C'est au nom de cette amitié C'est au nom de ce respect, c'est au nom de cette volonté de nous avoir à vos côtés et de nous élever avec vous que vous nous avez fait honneur ce soir. Mais c'est également au nom de toutes ces valeurs conjuguées que le président Abdou Diouf, le président Abdoulaye Wade, Quand on se promène sur l'ex-rue 13 de chez Ahmed Bamba, ne regardez pas sur la gauche. Vous allez tomber des nues devant cette extraordinaire œuvre que les Mourides ont bâtie en son honneur. Pour célébrer ce courage, vieux de plusieurs siècles, bientôt il va avoir un siècle, de creuser et d'extirper de cette réserve foncière du Cap-Vert, extrêmement rare, un patrimoine colossal, et de le consacrer à cette mosquée qui marque encore une fois, si besoin était,

Je marche avec les justes, je marche avec les preuves. Il l'a répété à Dakar. Dieu m'a fait savoir au moment où j'embarque dans ce navire que j'ai été élevé au grade de Khadim Rasoul. Vous êtes Khadim Rasoul. Que personne en parce que a prié qu'à sa Dieu accorde à chacun de ses petits-enfants sur terre. Que Dieu aura et clairvoyance. Que votre esprit, dans sa, sagacité, jamais ne s'efface. Et que vous restiez engoncés dans nos cœurs et dans nos esprits, j'allais dire qu'ici, dans les Écritures saintes, pour des siècles et des siècles.